moom dafa man dama doon dañ doon xuloo moom. c'est que da nga nekk ci biir parti bi doo ni démissionné naa di xaar ku la dàq pour nga victimiser wu. c'est ça c'est ça est est est-ce nga bokk dans une structure gisuloo gisuloo benn structure boo mën a dem mais xam nga ne structure bi nga nekk mu ngi nekk en léthargie. wala xam nga benn situation mu toll. le PDS est se mhm. d'accord aujourd'hui que la lutte pour dire que Karim Wade sera candidat dans un premier temps. c'était un procédé. Mm-hmm. de de de pour le défendre en justice. Mm-hmm. loolu loolu au moins d'accord nañ ci aujourd'hui mm-hmm. mais cet épisode là dépassé nañ ko le parti doit marcher. jusqu'à présent c'est le président la République moom mooy euh, euh, astafurlah le président Abdoulaye Wade moom mooy euh, le secrétaire du parti est-ce que loolu. c'est logique est-ce que c'est logique c'est vrai moom moo nekk le rassembleur. mais tey Karim moo war a imposer au niveau du parti rien ne l'empêche mu nekk secrétaire général boo leen mënee liggéey ngeen liggéey wala boo leen mënul liggéey. doo pourquoi Karim war a mm-hmm. ñi nga xam ne d'accord ñoom moom ñëpp tey pratiquement génn nañu. Mm-hmm. ña fa des nekk ak moom on suppose que ñoom d'accord nañu ak moom et puis wax ne aussi nouveau tey ah, Cheikh Abdoulaye Dièye def na ko. non c'est pas lu bees du lu bees waaw non lu bees. Mm-hmm. et même aujourd'hui dans beaucoup d'organisations loolu dafay am et même dans nos entreprises mm-hmm. loolu aussi loolu aussi loolu aussi c'est xam ne lu ñu war a xool la c'est-à-dire que bu kii bañal ko kële. tout à fait dès lors que aujourd'hui nous sommes dans une association les membres de l'association acceptent que ne ne kii mooy moom la ñu bëgg mu mu mu mu toog la majorité d'accord ci nañu d'accord ci loolu mais kooku aussi na assumer ay responsabilités. doxal ko nu ko bu ko nit ñi bu ko nit ñi joxoñee mu nangu daal ku bëggul toog doo toog ku mm-hmm. bëggul toog doo man mais mais man c'est pas aujourd'hui que mu jegewoon le pouvoir moom mu gënal je fais partie de cette tranche de militants yi nga xam ne que mu jegee le pouvoir moom mu gënal que mu jegee l'opposition et surtout l'opposition radicale parce que la place du PDS PDS n'est pas dans l'opposition et ça c'est que j'ai théorisé loolu loolu laa gëm que mu jege Macky Sall et eh, aujourd'hui le presse l'a fait ah gannaaw ba mu jëlee ñi doon ñi doon cëppi cëppi yëpp dafa leen ci kaso bi génnewaat leen bi mu leen génnee ñëpp a ko rejoindre ah Macky moom c'est le bâton ou la carotte non moment boobu moment boobu moment boobu le presse était seul ils ont mené ils ont mené le non, combat non ils ont ils voulaient cela jouer en solo. non non